Serigne Saliou da ko préparé instituteur la ko njëkk a def muy jàngalekatu xam-xam mu def ko un animateur maanaam tey jii nii muy toogee gone yi di dukkat ba nga xam ne mbooloo mu mu nekk kenn du yi bëgg a yeewee mu paree def ko un administrateur noonee ku mën a matale noonee ngay def Serigne Saliou rek a mën a matale ndax boobee lu ñu xool rek maa ngi koy la koy nett li bërki démb ni mas nañoo ànd di ko ziar mu di ko dajeeg waa taseet ñuy génn ci kër gi mu dajeeg sëriñ bi ni ko cey Mbàkke cey Mbàkke saa su ma jàkkaarloog yow rek am lu ma la sante bi may génn léegi waa taseet laa dajal sama morom yañ fa màggadool ñu mel ni samay maam Mbàkke da nga may nit ko xees waaye dootuma ko de boo ma bawoon taseet may xaar nawet ak moroom ma cey Mbàkke boo ma bawoon taseet may daw seko fu seko sëriñ Saaliwu jël ko muuñ boobee la ko nangul lépp te di ko fat fal-fal gu kenn dul folli bu mukk ñun tatone wuñu ñun dañoo am chance am tawfeex sëriñ Saaliwu ko ko wax te boobee mbooloo mi demewul noonu te la ciy jéeme yi gën a yéeme keroog ba ñuy dem ci moom quatre-vingt-dix-neuf personnes la woon di turi suñu boroom di turi Serigne Saliou mu ñëw boobee damay bañ a tudd aw tur waaye famille ba mu bokk ab société bu siiw ci biir Dakar la loolee ñuy wax ngal di ko wax cancer Jean Sive moo ko dal mu dikk ci sëñ Béthio fukki foo koy faj sëñ Béthio ni tey ma yóbbu li ci ngeen gi docteur tey jii nga tàggoog sa ngal ji ba ñu àggee ci moom wañi mbooloo mi ñu doon quatre-vingt-dix-neuf personnes la yàlla suñu borom sëriñ saali wooyu suñu borom sëñ bay ñu ni ko mbàcke diw mii kat day taalibe diw dikk diis ma boppam ndax lu mu amee woon aw mettit mu moo am ci ciiñ mi tubaab di ko wax cancer te wolof di ko wax ngal ba ma ko waxee dama ko ni Mbàkke tey jii wax ci jeex tey jii nga dindi ko yaay jël ci docteur mu gëstu bi ko ko Mbàkke mu ne ko neel mbooloo mi sëñ ni déglu leen sëriñ bi nee na mu ni ko neel mbooloo mi mu waxaat ko ba ñetti yoon mu ne ko fu waay jébbuloo ni mu ni sëñ bi nee na fu waay jébbuloo mu ni fii la jël loxoom teg ci dënn bi ku nangu mooy sa borom ku nanguwul mooy sa borom kookee lañu ñu Serigne Saliou Mbacke jox ndigal ñu ànd ak moom kookee la Serigne Saliou ni ku ànd ak moom ku ànd ak moom fii ñu nekk di ma noppal tey bu doom boo lëggee di ma noppal Serigne Saliou ci jaloore yi mu jëkk jaar ak sëñ Béthio maanaam ci ay kéemaan ba tax ngëm gi di gën a yokk Serigne Saliou dafa neex a gëm ndax danay gëmloo par force boobee 1981 la ñu nekk Kaolack ñu xëy dem ci ab CRD booba su gouverneur bu ñuy wax Souleymane Dieng a fa nekk sëñ Béthio jógee ci CRD bi ñu daje ci buntu gouvernance mu ni mën nañ dem dama laa soxla ñu dikk biroom toog mu daal ni commencé wax téléphone am sonné muy secrétaire bi secrétaire baa ngi dëkk Kaolack quartier bu ñuy wax ndar Ndargu Ndaw mu ngi tudd Maguette Sène daal ni ko sëñ bi mu ni ko mu monsieur l' administrateur mu ko mu ni ko Serigne Saliou Mbacké téléphoné na ko Serigne mu ni ko Serigne Saliou sama Serigne mu ni ko déet Serigne Saliou sama Serigne di wax ci téléphone mu ne ko en ah, kay euh, monsieur l' administrateur mu ne ko màggeen deel dégg Serigne Saliou wax ci téléphone mu ni ko mais mooma woo ba ma ni ko yow ndax yaay Serigne Saliou Serigne sëriñu Becco sëriñu Becco mu ni ma waaw ba ma tàllal ko samay loxo mu ñaanal ma ci téléphone bi mu ni ko ndeem doo dégg waxal lim la mu ni ko nee na boo toogee ba waxtu tàkkusaani suuf te déggoo na nga ko fekk daaree gor mu daal di ñëw toog ba waxtu woowee xel ma del si du xel mu del si sax ndimbalul Serigne Saliou la mu daal di waaw man Serigne Saliou jox ma ab oto bu may war jox ma essence bu doy jox ma chauffeur boo xam ne lu ma bëgg moo ma koy defal may xaar ñu may soññal bacci li moom mooy bàyyi jëwriñ universel Cheikh Omar li te dëkk ca Thiès quartier Bourguiba ci kër Cheikh Ablaye Bathily mu ni ko cuun mu ni ko acca nañ dem boobee daaray got yoonu taseet la da ngay dikk ba Cees nga dugg booy dem ba jub daara ji da aw tund la daara ji nekk ko wet da koy tiim bi mu ko tiimee seen daara ji di tàkk lamp yi leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ mu daal ni ah waa bàcc daara jee tàkk lan la tis ku ne xam ne Serigne Saliou Mbacke du nekk ci leer lamp yu tàkk bàcc nañ ah, mu ngi tàkk de bi ñu ñëwee ba jub daara ji daara ji li ko wër lépp di ay oto quoi lii mel ni xalif général de mourides fii ñëw nañ wàcc wàcc daje taalib yi ni leen lu xew ci daara ji ñu ni ko Alaaji Abdou Aziz Si moo gale si seen Saliou Mbacké mu daal di dugg ana sëriñ bi ñu dugg ba ca kees gi mu waaxu wutali fekk sëriñ ba ca kees gi daal koy ni nuyu joxe addiyaam dal di toog arrière di laaj ci saaliwu yi wëroon sëriñ bi man saaliwoo ko ci war a woo téléphone daldi di woo na kobas na sëriñ saaliwu Touré bu Thiès kobas na sëriñ saal si yàlla na yàlla yokk ay leeram kobas na saal njurul bay seetaat meneen sëriñ bu muy kobas te ko mu ci wax nga di ko du man muy jéer di xool kan lay kobasaat sëriñ saaliwu fettasu ko ba mu xool ko mu ne ko laajte bi matul damaa toog ci fajar ci daara ji ci xeeti gént ñu ne ma laaj Malick si gàññi ne si na ci daara ji ma daal di jóg di xool nu dongo yi fanaanoo di leen nemmeeku ndaw dab ma ni ma alaaji Abdou Aziz Sy ngi agsi di ko nag ba alaaji Malick ñëwee damaa toog di waxtaan ak moom ba ñu nodd ci jàkka ji tisbaar ma ni ko nodd nañ ci jàkka ji nañ dem nga jiite ma nee na bi ñu egsee ci daa ja euh, jàkka ji ma ni ko jiite ma alaaji Malick ni ko jiite ma Serigne Saliou di ko yaa may jiite alaaji Malick ni ko yaa may jiite nee na ñu koy gengoo ba ma jiite biñ ma ne alaaji Abdou Aziz si ñëw na fii di ci daara ji bi ñu toogee maa moom di gise di gise ba waxtu tisbaar ñu nodd ma ne ko nañ dem ca jàkka ja ba ñu àggee ca jàkka ja ma ne ko yaa may jiite ndax yaay sama gan alaaji Abdou yaa mu ni ko dama lay ñaan nga jiite ma ndax jamono bii sama sedd bi dama daaneel te duma laalum ndox mu ni ko junni yuy laal ndox yow mii dul laal ndox yaa ma leen gënal jiite ma Serigne Saliou daal di koy jiite daal di ko ngan googu rek laa bëggoon nga fekkee ko moo tax ma doxalee ni ma la doxalee waaye kon laajte bi mat la Cheikh Béthio jàmm Serigne Saliou Mbacké yàlla na ko yàlla lool